ñun Otra-Africa dañu def taxaw seetlu juróom benn weer yi passé yëpp ñuy déglu di seetlu di xool kan moo ñu mën a indil xibaar boo xam ne dina ne lii mooy saafarawu mbëkk mi boobu nag ñu teg benn groupe boo xam ne day xalaat day saytu bu loolu amee ba tey nii gisuñu kenn ko ko def moo tax ñun ñu toog ginnaaw gisuñu dégguñu ñun ñu ne ñun nañ si wax si liñ si xalaat parce que boo ba ñu ngi koy jàngal jàngat biñ si am mooy ni que jàpp nañu ñeenti ponk yi buñ ko defee dina am mu dina xaw a tane ponk bu njëkk bi mooy nañu xam ñan ñoo nekk si mbëkk bi ñan ñoo siy yëngatu ak nan lañ siy yëngatuwee puisque tamit xaalis bu bëri da si nekk de te ku nekk nag mu ngi siy wax xaalis bu bëri am na si ku nekk mu ngi siy wax mais ku nekk li nga siy wax nañu xam lan mu fan nga nekk ak lan ngay def benn ñaar ñuy ñaan njiitu réew mi. na fexe mu dajale njaboot gi moom mu tënk ñëpp dans le cadre d'un conseil présidentiel sur la migration sur la migration conseil présidentiel sur la migration ñëpp a toog waxtaan ñu xool parce que jàpp nañu ni askanu Sénégal bu ñu dajalee ñun ñëpp nekk benn say lu ñu yëkkati daan ko donc war nañu mën a toog waxtaan pour ut alternative par rapport ak loolu ñeenteel bi mooy ni que xale yi dañu bëgg a dem te téye leen fu mu nekk nii dina métti trop. nañ leen wutal ay alternative maanaam tey xale bi au lieu muy làqatu di dem mu jël passeport dem si benn bànqaasu état nee leen man de dama bëgg dem réew mii laa bëgg a dem bindu foofu bànqaas boobu tamit xool nan la koy jàppalee ba mu dem si réew moomu bu ko defee dañu xam sunu doom yi fan la ñu dem nan la ñu demee te duñu jël kii mbëkk mi ñeenteel ponk bi mooy teg nañ fi stratégie nationale de lutte contre l'immigration irrégulière boobu ba léegi ñu ngi yëngatu waaye dafa mel ni dañu amul dëgg-dëgg ay banque ay bànqaas dañu amul moyen pour seen politique boobu nañ leen jàppale amaana ni ñooñ bu ñu leen jàppalee si ay si ay nit si alal si matériel mën na am ñoom dañu teg loo xam ne mbëkk bi dañ ko génnee alternative beneen ponk bi nag boo xam ne ponk fulla ak faydawu gouvernement la kooku moom dañ siy duut baaraam gouvernement ba mu kii tey pour nga am rendez-vous visa fii si dëkk bi dafa métti am na sax ñu ngi koy junju que dañ koy jaay dañ koy junj leeruñu mais bu nekkee dëkk yooyu dañ leen accrédité fii ak cahier de charge bu wóor tey problème bii mu nekk problème national ba muy nekk problème mu sécurité na gouvernement bi rappelé euh, consulat yooyu wax leen nag dëgg nee leen problème ginnaaw ko yéen yaa leen ne ku indi kayit yii ngeen jox ko visa kon fexe leen na nit yi di yóbbee kayit yooyu ngeen traité leen ngeen jox leen visa di leen bañal visa bi te tegoo leen ko fenn kooku su yéen la waaye damay yóbbu sama kayit pour ngeen biri ngeen ngeen jàng ko loolu nag wax dëgg yàlla lu war a yomb la te lu ñu war a liggéey la loolu nag gouvernement wu Sénégal de parce que loolu mooy mën a permettre xale bi nga xam ne amul benn yaakaar pour dem taxaw si consulat bi mooy jël géej gi mais xale bi nga xam ne am na yaakaar ni bu dugalee kayitam ñu may ko visa day dem si consulat bi donc également Sénégal fexe waxtaan ak yeneen réew yi ñu xool nan la ñu génnee suñu doom yi mu nekk génnee bu wóor bu lew bu baax te boo xam ne dina ànd ak koom loolu daal ñun loolu lañu ñu comme solution te yaakaar naa ni gouvernement bi bu tënkoo si lii war nañ si mën a génn loolu rek li moo mën a téye mbëkk bi fu mu nekk nii.